saa su ngeen di wërati xibaar bu gaaw ñu saytu ko ba mu leer jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu sëriñ Daaru Asan Njaay gaaw leen gaaw ngeen abonné si Daaru Njaay TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu yi ngeen itteewu Daaru Njaay TV di leen toppal lépp luy information 24 heures sur 24 gaaw leen gaaw abonné bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp saa su ne fii si Daaru Njaay TV tedd gi mbokki jullit yi mbokki musoobe ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax di jiital ci nuyoo man sëriñ Omar Bousso mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Mbacke Bousso di ko ñaanal suñu borom subhanahu wa taala yàggal ko ko yi mu fas am njaboot bi di nuyu mbooleem kilifa yi nga xam ne ñu nekk ci jataay bi rawatina suñuy Seex Buso nga xam ne nii moom ko fi nekkal waaye di nuyu suñu Mbakke moom suñu Abdu Rahmaan moom it eh, ni mu mel ci jataay bi noonu la mel ca jataay ko suñu Daaru Asan baax di nuyu bu baax a baax it suñu Fall Buso Hasan Male moom it eh, suñuy jataay eh, bariwaana lu ngi ñëw ca kër ga di fa def ay jataay yu am solo kon ñi sant bu baax di leen xam naa nag bala tàmbalee liggéey bi ni ñuy leerale mooy euh, kàddu gi nga xam ne ni mooy kàddu kër gi yàlla daa dogal ñu jox moom euh, dafa am benn xasida boo xam ne nii bi yëf yi ñëwee euh, muy tudde gi ñu tuddee bis bi sëriñ Darou Assane moo neex ci suñu xol lool kawe ci ñun lool ñu ne lii moom mënta ñàkk ñu am loo xam ne nii dañ ko fay demaale ngir barkeeloo loolu moo sabab ñu jël benn xasida goo xam ne nii sëriñ Cheikh Maram mais moo ko def ci seen Mbacke Bousso ñu àndaale ko li ciy jiitu si mooy xasida bi sëriñ Abo dafa ne tiire nañ ko ba mat cent pass ba mat cent kii kon mi ngi noonu kon mi ngi noonu loolu lañ bëgg a jiital ci liggéey bi bu ko defee sëriñ Cheikh euh, man koo man man ko man koo man koo jàng ñu ñu ñu dégg ko euh, bu noppee nag ñu doog di dugg ci euh, kàddu gi insha allahu rabbi kon sëriñ Cheikh bisimilah aoudu billahi min alcheytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim wa salaatu wa salaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نيجي نيو واجتا بي نيبو نيجيتال سي نيو بي نيغا خامني موي خليفه سيدنا بكر بصر رضي الله عنه ني سيدنا عمر بصر اك بولم كليفه ين تك دلا سلام تعرف روضك صافحه النبى يزف إلى أهل المكارم والندى ولا زال ما قام المؤذن للندى di wax ne bi ñuy teew ki njëkk bi jataay bi dafa am xasida bu mu ko tijjee léegi bañ ko déggee nag loolu dañoo yëbb ci ñi def ay bayit yu yem ci diggante bi ngir daa koy delloo loolu ndax daa bokk ci seen aada ñu wax ne الحمد والشكر هذان دنيون تمن لكنما الشكر شكر نند سنتنا فلتعلموا أننا بدن تين في لذا أتينا بوفد ما له ثمن فلتدركوا أن يوم أسيادنا حضروا كذاك لونغي أهل العصم دكنا تاونا تأندا لمجمم وصفه تنمه kulen na jak na hathal bishru kay alanu tewnan indala hadiyatin tafuqu khalal تخير قلول نك ولكن زانها سكنو ما فافتخو في تطلل سايلخو تدنيان بوريان لدول لغنيل والمال بغننو مدول ليت غرو نك اي نجغلك رحمات للشيخ مبك وجد الوفد اي حسن لولو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 وخنا هاجت عواصف شوق حين نادانا صوت وقال بأن الشعر قد حان وساقنا شغف الأبرار والكرماء لمدح من كونه شمس العلا بانا فقمت أرقش أبيات منمقة يهتز سامعها للحسن سكرانا فجاءت المفردات كي تنال علا بوصفها لكريم حاز رضوانا ذاك الذي شهد الأخيار سدده وكونه حجة للدين برهانا ذاك الولي التقي العابد الورع الزاهد السند النحرير مولانا أبو محمد السيال عيلمه سنبك الرسل منارا للهدى كان أكرم به من فتن طابت سريرته واعظم به من ظريف عاش معوانا وعن مناقبه حدث ولا حرج فالله قدمه سرا وإعلانا فليس يحتاج ضوء الشمس من حجج وطاف ضائله كالشمس تبيانا الله طهره أصلا وطيبه فصلا وكرمه فضلا وما هانا بحر الحقيقة نور الكون بهجته فر الخلائق بيضانا وسودانا هو الخبير ينابيع المعارف لم يدرك حقيقته من حان أو بان لو أدرك الناس شيئا من حقائقه لسبحوا الدهر للإجلال سبحانا إني تجولت في آفاق عالمه كي أدرك السر لكن صرت حيرانا الله ربي أخفى سره أبدا من بعد ما علمه الفياض أهدانا هذا هو البدر والأخيار أنجمه من قال شمس الضحى ما قال بهتانا وهو الذي فاق لقمانا وحاتمهم كذاك قسا إياسا فاق سحبانا ما ولدت قط أنثى من يضارعه خلقا وفي خلق قد كان قرآنا شاعت مآثره بين الورى وله من المكارم ما فالعصر أعيانا فذ مجيد جواد ناصح قثم غوث ملاث مجير سندد لانا بحر أديب حصيف فاهم لبق مفتي المريدين صاف عرضه صانا أن ستحوي عبارات محددة معنى الذي فاق كل الناس عرفانا وليس تحصي ولا تحوي القصائد ما قد حاسه سيد السادات إحسانا هذه هدية أبيات معطرة تفوق في الحسن ياقوتا ومرجانا من ابن أحمد نجل العارف الحسن للشيخ مكي بوسو من سبقه بانا صلى الله وسلم ربي ما شعى بسر في الحج أو ركع العباد إذعانا على محمد خير الخلق أفضلهم وخير من شاركوه الجد عدنان السلام عليكم ورحمة الله xasida boobu moo ko ci defoon xasida gi it sëriñ Daaru Asan moo ko bind ci moo tax kenn ku nekk nag la nga am ngay demee marché kenn ku nekk la nga am ngay duggee marché moo tax bi ñuy ñëw ñu àndaale xasida yi nga xam ne Sëriñ Daara Assane moo ko defoon ci Sëriñ Touba ak abiyaat yi nga xam ne moom la ko Sëriñ Touba tontoo woon kon lool it ñu ngi leen koy jébbal ñun ab kaamil la kaamil alxuraan yaakaar naa ku ne mbusoo bi nekk ab kaamil kaamil alxuraan la boo xam ne ñoo ko àndaale ngir mbég mu ñu am it ci tudde gi ngeen tudde sëriñ Darou liggéey bi mm-hmm. kaamil bi nag dañ ko indi jagleel ko sëriñ Omar Bousso nga xam ne mooy xalifa sëriñ Mbàkke Bousso kon mii nii sëriñ Cheikh lañ koy jox bu fekkee ne mën nga ñu jël benn cadre boo xam ne nii sëriñ Mbàkke Bousso moo ci nekk ak sëriñ Omar ak sëriñ Abdou Khadir mi ñoom ñaar ñoom la yàlla ci cër bi kenn ku nekk wóotu fi boole cee nag defaale arsif yi ci dab bi biñ ko def ak ko defee loolu moom yéem naa ko ci sàmmku way ak ci wattandiku ak fonk bokkam di leen seetee ka terlaate yéem naa ko ci gëm akuk lislaami dee su ko jam sariixatoog sunna ñooy yoonam yu jub yaati yéem naa ko ci dëgël ak pastéef bu sell téere yi ak yar ñu ñam ñam ci diineeg yoonu bambaati yéem naa ko ngir istuwaaram riis ga dem na dayo ku xam ca as lëf lu tuut tuut faw yéem kooti daa reyn yaa asanu xayran bi jaa illasi min najlin asanu jasaaka rabbuka fi daa reyn yaa asanu قرن بجاء الذي من نجل العسن حتى توصل الذي ترجو وتأمل ممن لون قد بدا كتمان والعلن فهلا بأن يرى دين عنك متلب جاءك الفوز من مولاك والمكن فلا تزل في تقى ورز متهدا كي لا يلا الزهان والفتن فلا تزل في تقى ورز متهدا كي لا يلاقيك isyaanu wal fitanu ñu dellu di nuyoowaat mbokki Mbusoobe yëpp di am mbégte bu baax a baax ci bis bii nga xam ne da ngeen koo jël dara jaale ko Sëriñ Daara Xasan mu nekk lu rëy fi lool sedd suñu xol lool ba sax bi ñuy jóg di ñëw jàpp nañ ne lépp loo xam ne nii dafa nekk suñu kanam dañu ko war a jël andi ko lépp lu ñu deqataloo yëpp dañu ko war a andaal ngir mbégte mu yaatu moo xam ne ñu am nañ ci bis bi ma agsee ci kilifa yi kilifa yi da ko dañ koo wàccee ci ñi nga xam ne lu mel nii seenu liggéey la ñu dox ci lañ sa war a dox moo tax délégation bi nga xam ne ñëw na fi dama cee bëggoon a jaar ci tënk boo ko defee ki jiite délégation bi mooy sëriñ Moustapha Fati Ndiaye moom sëriñ Abdoulahi moom sëriñ Darou Assane sëriñ si Darou Assane ànd koog sëriñ Cheikh Maam Faye moom sëriñ Ousmane nga xam ne mooy yor kàddu kër ga euh, moom sëriñ Mbaye Fallou moom sëriñ Darou Assane ànd sëriñ Moustapha Modou Ndiaye Assane moom sëriñ Ndiaye Assane moom sëriñ Darou Assane ñooñu du suñuy way jur ànd koo yi sëriñ Baye Mbaye Ndiaye moom sëriñ Modou Ndiaye Assane ak sëriñ Baye Ousmane Ndiaye moom Baye sëriñ Ndiaye moom sëriñ Ousmane Ndiaye ànd koo Baye Ahmadou Ndiaye moom sëriñ Abdou Rahman moom sëriñ Ndaw Assane sëriñ Lamine Diop ko wax léegi di diggante sëriñ Mbacke Bousso ak sëriñ Dara Assane mu nekkoon diggante bu rafet ba agsi ci seenu njaboot ñu di ko rafetal ba mu agsi ci sët yi ak sëtaat yi kon buñ demee ba bis bu mel nii am suñu diggante loolu dañ ci sant bu baax a waaye it duñu fàtte fàtte wuñ démb de bañ leen tuddee suñu bis ba na ngeen ñëwee ñëwin wu kawee ba ngeen ñëwee mi ngi ci suñu xel ba léegi mbégte mañ ci amoon ba léegi dakko kon teraanga ji dox suñu diggante yàlla na yàgg ñu diko ko jokkalante ba ni ko jëlé ci suñu maam suñu sët ak suñuy sëtaat gën ko ci ñu diko dox doxal ndax kóllëre li ñuy laaj lay dox ci kon kóllëre go gi nga xamni ni nii yeesal ngeen ko tay faxas ngeen ko moom seet wecc ngeen yëkëti ko ba ñëpp di ko gis kóllëre googu yi suñu borom subhanahu wa taala rek mi tax ngeen di def yàlla leen ci defal ngeerama defal leen ci ngërëmu yonent bi sallallahu alayhi wa defal leen ci ngërëmu Serigne Touba waaye defal leen ci ngërëmu Serigne Mbacke Bousso ak loolu yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def yàlla it ci kiimtaan yi nga xam ne da koy def yàlla na ko def ci Serigne Omar ak Serigne Abdou Khadir kiimtaanu gudd bu wér waaye def ko ci ñun ñii nga xam ne nii nag ñoo teewe jotaay suñu ko doon subhaana taala defal ñu kiimtaanu wér ak gudd fan. waaye loolu lépp nag mu dexal ñu ci biir ay ndigalam ba duñ ko mën a génn tëjal ñu buntu ay tereñ ba duñ ci mën a àgg suñu borom yi dara tawul it mu ubbi ñu mbooleem bunti xéewal yi ndax projet yi ma dégg ngeen ba koo def ay xéewal moo koy def yàlla nañ ko yàlla defal te defal ñu ko ndax bëgg nañ lu mel noonu ñu ngi ci lu mel noonu kon yàlla bi nga xam ne nii lim yor moo ko moom te jaam yi rek la koy jox ndax moom du ko jëfandikoo doyewu ko dara. kon ñun ñii nga xam ne nii ay jaamam lañ yu xeebu nangoo sukk nangoo toroxlu ci kanamam yal nañu ci suñu borom subhana taala jox luñ ci doy sëkk lan ñu ciy doxe yal nañu suñ borom subhana taala ci mbaaxam tracé ñu fu ñu koy jaarale te ñu bañ a tracé suñu bopp fu ñu jaarale kon ñu ngi sant bu baax a baax di di gërëm di sant mboolem soxna yëpp di leen gërëm bu baax a baax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكتالي يسجيو وكي جلدي يتعمل كابي تبيو الزيار يدج الخليفة العام يبوي جلسي عم حمد المنتقى نانا الكسر بروم يعقل الكوفي يموت أي نايا يبوي أكسيا بقاح يموت سنمام سنين دار حسن جاي ينبيو أكسيا بتكتي مخلص المصطفى جاي jot nañu ko sëñ Abdou Khadim mu dem ci mbooleem njabootu sëriñ Daaru Hasan Njaay gi nga xam ñëw nañ ak ñu des ca barab yi di yëkkati kàddu ci tur sëriñ Omar Bousso mi nga xam ne nii moo ne ci bokk njaboot sëñ Mbàkke Bousso waaye ci bi nga xam ne nii ñoo ne ci gannaaw tàmbale ko nag ci kàddu yi cant ak ngërëm sant bu baax a baax njabootu sëriñ Darou Assane Ndiaye ci yitte ji nga xam ni jox nañ ko bis bi ak teewaay bu rafet bi ak yëg-yëg bi ak xéewal ak teraanga yu bari yi nga xam ne nii andi ngeen ko fi sëriñ bi nee na bu baax leen dalal jàmm bu baax tam ci seen dëkk bii di Guédé xam ne ñoo yéen ñoo bokk yam sax léeg ngeen lañu ci sëriñ bi nee na yëg na ko te mi ngi leen ci dalal bu baax a baax di rafet lu teewaay bi ni ko njabootu sëriñ Mbacke bi si gépp di rafetloo te ñim yebal ñu teewal ko jëmmal ko jotaay bi sëriñ Cheikh Bousso moom sëriñ Xasan ak sëriñ Alhaaji Bousso moom sëriñ Baye Sëriñ Bousso Xasan ak yeneen bokk yi nga xam ne nii ñoo ne seen gannaaw teew fi teewal fi sëriñ bi ñu leen di jotti yi cant yooyu di sant bu baax itam nag fadilatul imam sëriñ Abdou Mbacke Abdou sëriñ Mbacke Abdou Rahman ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne nii jàllale na ko fi waaye mbokkam mi nga xam ne nii itam moo ko doon taaliqal muy sëriñ Xaadim Mbàkke moom Seex sëriñ Seex Mbàkke Guèye xam naa sëñ bi moom li nga wax am na solo lool waaye nag sëñ Lamin Jóob moom dañoo waxal lu am solo xam naa ne baax ngeen lool waaye nag ak kilifa ak imaam moom buñ ko xamee ci yéen ci mbusoo bi la déparé loolu moo xam naa ne kon ñu bàyyi ko kon daal mbusoo bi am ngeen leen bor bu boo xam ne nii defe naa nan koy bàyyi xel kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci turu sëriñ bi ak turu jamootu sëñ Mbàkke bàyyi fi ñaari kilifa yi ba liñ yéenee liggéey ci njabootu sëñ Daaru Xasan ak sëñ Mbàkke Buso suñ borom def ci lu kawe njort wa daalika alallaahi bi aziz kon nag tënk bu gàtt ci li sabab njabootu sëñ Mbàkke Buso xalaat ne nañ jël bu mel nii dara jaale ko njabootu sëñ Daaru Xasan Njaay ngir fàttali ku démb relation ak kóllëre yi nga xam ne doxoon na seen diggante sëñ Mbàkke Buso fa bindoon bu yàgg ne al arwaax junuudul mujannada maa taxaarafa minha talaf wa maa tanaakara minha talaf nee na ruu ay soldaar la yox dañu recruté ñu ci bokk kaa ñu nekk dañuy xamante miinante waaye ñu ci wutee kaa ñu nekk mën nañoo wuute mën nañoo dalante sëriñ Daaru Xasan ak sëriñ Mbàkke Buso leen boole relation la boo xam ne nii ci wàllu ruux la sukkandiku ndax sëriñ Mbàkke nee na mbokk ñaar la mbokkum deret ak mbokkum ruux mu ne nag mbokkum ruux moo ëpp doole mbokkum deret ndax ruux moo féete kaw yaram kon ñëpp ñoo xam ne nii seen bokk ci ruux la mooy gën a dëgër mooy gën a dëgër ñi bokk ci wàllu deret kon sëriñ daaru ak sëriñ Mbàkke li leen boole mooy wàllu ruux te mooy yaroo ci keppaaru sëriñ Tuubaa ñu bokk ci mag ñu njëkk ànd ak sëriñ bi sëriñ bi def ci ñoom ñu mu def ci ñoom foofa lañ ànde moo tax sëriñ Mbàkke ne ñoom ay soldat lañu recruté ñu bokk benn kanam bu ko defee nag dañuy daan xamante miinante di joxante cër ñu bokkit aw déggee ci sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu mooy gëm ne sëñ bi xaqiiqa mu nawwara la andi waaye sharia mutahhara la ko lay ñu boole woon xaqiiqa boobu gi boole koog jaamu yàlla bi kenn mënu leen woon ci rakkaay yeeg koor yi waaye itam kenn mënu leen woon ci waaru sëriñ Tuubaa defe naa ne bokk na ci ñu néew ñi nga xam ne ni sëriñ bi moo leen tuddeel boppam al muridu saadiq loolu nag defe naa ne yëngu ci ñi sëñ bi di ko tuddee kon ñoom ñaar dañoo bokkoon déggin ñi am ci sëñ bi te mooy gëm ne tarixatul muridiyya mooy lislaam di service yoo xam dara kooju ko waaye nag ànd ak maanaam tasawuf ihsaan leen rafetal bu mat sëkk goo xam lépp luy lu baax dañ koy dañ koy làmbaale ci biir kon dégg ci bokk gi ñu bokkoon dégg sëñ bi loolu bokk na ci leen gënoon a boole taxoon ñu bokkoon aw doxin bu ñu delloo tam ci seere yi nga xam ne nii sëñ bi def na ko ci ñoom dafay faral di niroo lool sëñ bi jàng na ko léegi faxalam bi anni raadin anka muttalibun mu bi an jaa akal fawsu min mawlaaka wal bi waxoon sëñ Daar Assane Ndiaye ko ne ko euh, xamal ne am nga ngërëm ci man suñu borom tam war laa jox texe ak ak jàppandal ak yu mel noonu loolu la waxoon sëñ Daar Assane waaye dafa wax sëñ Mbàkke tam ne ko فمني إلى من مال قلبي لقياه خليني أنيسي من ردينا سجايا ده نون ما نجيل سما خالي ما جمال كنت كينا خامنني سما خالد فجيم جيم كده جيم مم موي سما خالد موي سما ويتل موي كينا خام جيكم يب نحن كون غيس نياري سيريوس كنك سين بي موكو داك سي يو مو سين باكي اك سين دار اوسان مي بوك سي نورو لول غيس نتي مينو سي محمود البشير مو ني سين دار اوسان بي sëñ bi di ko xool ba mu yàgg mu ne jëmm ngi ñuy ñëwee koo xam ne comme ne ci sa gannaaw ab soññ la ci yow te boo yeexee mu jéggi la jàll wala mu jiitu la kon nag war ngaa rawante ci course nga nekk yaa moom am na jëmm yoo xam comme ne ci sa gannaaw ab soññ lay doon ci yow ndax seen melokaan ak seen baax ak seen seen seen seen yoon seen yoon mi jaar loolu sëñ Xaadimu Rasuul waxoon na ko si Jaara Asan Njaay waaye gis nañ tam ci loo xam ne nii soxna Amin Dëgg Sow moo ko nettali muy nee na sëñ Mbàkke dafa mës a ñëw ci kër sëñ bi fekk boobu ñu toog nee na mu daal di yëglu sëñ bi ne ko soxna amit dama xool kii yëglu ku mu doon nee na mu ñëw ne ko sëñ Mbàkke Buso la nee na sëñ bi ne ko na jàll si nee na bi mu jàll see sëñ bi waxtaan ak moom ba muy dem nee bi mu demee ba génn sëñ bi woowaat soxna amit te ne ko day jëmm ngi nii ku gore ngi nii ku gore ngi nii ndax li ko yàlla may ci wàccuwaay ak xam-xam ba noppi mu nangoo jël lépp topp sama gannaaw loolu ngor mënu ko féete kaw kon ñoom sëñ bi daf leen nawoon nawloo leen loolu nag def naa taalibe bu nekk dañ cee war a jàngee ne sëb sëriñ daf laa war a naw nawloo sëriñ du morom waaye naw la kon loolu taalibe dañ ko war a jàngat la baax a baax kon ñoom ñaar dañoo bokkoon nu ñu déggee sëñ bi bokkoon tam gis-gis boo xam ne amoon na ko ci njàngaleem sëñ bi loolu moo tax ñu teel a ànd nag ci façon yu baree rek yaakaar naa bu ñu xoolee ni leen yàlla boolee barab ci dëkkuwaay defe naa ne tegtal la ci ne seenu jaxasoo yàgg na lool lool ndax ñaari njaboot yi ni jaxasoo ci Touba néew na gis njaboot yi ko jaxasoo ci njabootu sëñ bi loolu ci ne seen relation yàgg na lool te nag dëkk dafa yàgg te dafa métti te yaakaar naa buñ dëkkee ba léegi nag man déggaguma fenn fu ñu ne diw kër sëñ Daaru Asan jote naa diw ci kër sëñ Mbàkke Buso loolu def naa ne dëkk bi yàgg na te léeg-léeg ay xat-xat yu bare bu nay judd kon nag yar bu ne ci ñoom ak boole gu leen suñu borom boole moo tax ñu mën a dund ci jàmm ak salaam loolu tam ñu gën koo bàyyi xel soññ ci njaboot yëpp xale yi surtout xale yi door a jóg ñu bàyyi xel ci ne kóllëre googee doxoon seen diggante ñoom ñun dañ ko war a sàmm dañ ko war a yokk mu gën a jëm ci kanam kon loolu mooy li nga xam ne nii njaboot gi tax ñu jël bis bu toll nii dara jaale ko sëriñ Ndiar Xasan Ndiaye ngir di ko waajalee bis bi ñuy fàttaliku sëriñ Mbàkke Buso waaye itam yaakaar naa ne ku nekk xam ne ne sëriñ Ndiar Xasan bi mu fi jógee wax nañ ko léegi si Mbàkke Buso la sëriñ Tuubaa woolu defe naa loolu 1924 ne war ko demal nga taxawul ma sëriñ Ndiar Xasan Ndiaye loolu lépp ay tegtal la ci ne sëñ bi def leen a teel a boole ñu ànd ne ci kappaaru Sëriñ Tuubaa waaye bokk na tam li ñuy ràññee seenu bokk ci kanam gannaaw Sëriñ Tuubaa sëñ Basiru bind na ne sëñ Daaru Asan ku bi la ñu njëkk a ànd ak la bokk nee na dund naag sëñ bi mat ñeent fukki at nekk na koog sëñ bi te moo fi njëkk a jógee sëñ bi kon defe naa àndam ak sëñ bi yàgg na lool waaye sëñ Mbàkke Buso moom ba muy ànd ak sëñ boobu sëñ bi sosagul yoonu murit yàgg na moo jiitu yoonu murit ca poroxaan ja ndax ñoo bokk liñ bokk suñ mbàkk ñoo na ci léegi waaye itam nag sëñ bi ko boppam boobu mu toll ci suru taaxa mu àggale ko alxuraanam jàngal ko ci jëkk ak yeneen ak yeneen sëñ bi defee déclaration ci 1883 suñ mbàkk ñëw bokk ci ñeent fukki njëkk a bi ci sëñ kon ñoom ñaar seenu ànd ak sëñ bi yàgg na lool lool kon bari na lu leen boole ci zaahir waaye bari na lu leen boole ci baatin loolu nag def naa rek moom la ñuy dabu ci biir njaboot yi te defe ni li ñu fi dégg tey nag tegtal la ci ne war na noo mën a ànd mhm. ndax sët yi li tuut tuut ku nekk li ñu fi feeñal rek tegtal la ci ne yaa ngi xeñtu ndono mhm. te lu baax rek nga doon sëñ Mbàkke ñëw na ci léegi xam-xam lañ xam ak jaamu yàlla mhm. defe naa xam-xam rek lañ fi wane bi ñu fi toogee ba léegi xam-xam lañ fi wane di ko wane ci xasiida di ko wane ci mbind di ko wane ci téere di ko wane ci leneen loolu nag defe mooy waar yi nga xam ne moom la sëñ Daaru Asan jiitaloon sëñ Mbàkke bis moom la jiitaloon ci njaboot gi war cee bay nag ba ku nekk nga def ci la cay sawar ba tool bi mën a set wicc wicc kon ñoo ngi dellu sant bu baax gërëm bu baax suñ bokk suñ suñ suñ suñ mbay suñ mbay njaay alors nga xam suñ mbay mi nga xam ne moo jëloon kàddu bi rafetlu kàddu bi baax a baax waaye di rafetlu tam si si am maanaam ci xasida gi nga xam ne am na solo lool lool def naa ne ko si si wax naa waxee du yàgg dañ ci dellusiwaat jéem ko tasaare ba gën a yaatu ci biir jamono amee cant bu baax nag suñ mbàkk Abdourahmane ci waxtaan wi ni nga ko jàllalee ci diggante bopp bi muy ñu war a xam defe naa si sa xaadim ñëw na ci tax lépp ak suñu xaadim bu so leer na nañ kon bopp gi dañ ko war a xam ndax bu ñu xamee lu ñu boole rek lu ñuy wuutale dana jafe waaye ay bu ñu nekkee te xamul leen boole leen boole lu leen wuutale dafay yomb kon nag nañ ko gën a gëstu ñëpp ñu xam li ñu boole te jéem koo dundal te moytu nag maanaam doxinu àdduna wu yees bi nga xam ne nii ci nañu baree bari ba dugal leen ci ñu a fàtte seen ndono démb ak bërki démb ngir koñ koñitum àdduna loolu nañu bàyyi xel ci ne mag ñi ñuy fàttaliku ñoom bokk na ci liñ doon génn ci xelum nit ñi mooy luy turu poñ-poñi dum àdduna bañ leen a yàqal seen diggante ak seen borom waaye bañ yàq seen diggante ak seen morom kon ñoo ngi sant di gërëm di jot nag kàddu yi cant mu jóge ci sëñ bi mu jëm ci daairatu sulamul wusul nga xam ne ay tutànk lañ ñoom sax ma ay sëtaat lañ ci sëñ Mbàkke Buso nga xam ne ay tutànk lañ wax dëgg yàlla seen taxawaay am na soloo ci biir njàngaleem sëñ ni ko sëñ bi waxee léegi du karib nga xam ne ñi ngi liggéey liggéey bu am solo ci xam-xam bi nga xam moom sëñ Mbàkke bàyyi woon ci jéem a dundalaat téere yooyu jéem koo taxqiir koo saraa jéem koo leeral waaye móol ko móol yu bees yoo xam ne nii ñiy door jàng danañ ko mën a jariñoo bu ko defee maktabaan itam man koo gën a jariñoo defe naa daaw génn nañ sahaadatu tulaab fii si Rachidul Xadim xam mooy téere bi njëkk a bind ci biographie Sëriñ Tuubaa ci sëñ Mbàkke sa def ko booba sëñ baa ngi ci àdduna booba génnagul àdduna booba la ko sëñ Mbàkke defoon ci ndigalul sëñ bi ci téere bu ñu waroon a móol ca Égypte dañ waxoon ne il faut que ñu indi ci ki ki ko móol ñu xamle ko tuuti sëñ Mbàkke bi ni saada tra fii si ret seen xadim tuddi woon ko nubza biñ koy moolaat la njaboot gis ne mën nañ ko di saada tra fii si ret seen xadim di liggéeyaat tam ci yeneen téere yi xam ngeen sëñ Mbàkke lañu bàyyi ci ndono am na solo waaye tax yawaaqidi salaat fii taqrib awqaati salaat nga xam muy téere boo xam sëñ Mbàkke ko liggéey moom it muy téere boo xam lépp lu ngeen gis muy waxtu yu julli waxtu yu dog ak yu mel noonu suñ mbàkke moo ko liggéey nga xam képp ku ci yëngutu ci moom ngay dellu muy téere boo xam fanweer at ak ñett la ci suñ mbàkke liggéey saa yu xëyee dana xool jant buy fenk buy so dana ko xool daal koy noté bis bu ko ci raw da koy jàppaat déwén loolu def na ko diir fanweeri at ak ñett door a génne téere boobu fanweeri at ak ñett yooyu dam ngeen bàyyi xel ci ne du mooy li ñuy wax istilaaf ci ilmul falak mooy at mi nga xam day mëdd atum jullit xam ngeen atum tubaab yi 365 wala 364 ci ay fan lay doon atum jullit nekk 254 ci ay fan kon atum tubaab mi ëppee atum jullit yi fukki fan ak benn fukki fan ak benn yooyu mu ko ëppee nag fanweer at ak ñett yu nekk weeru tam xarit dana teeru ñaari yoon ci biir atum tubaab moomee kon nga xam ne dañ ci doon dàq mooy fexe ba atum at bi si at mi yëpp bis bu nekk mu xam ci ban heure la jant bi fenk ak ban heure la jant bi so loolu ci la sukkandiku bindu téere bi nga xam ne ni fii ba àddina tukki moom dañ koy mën di jëfandikoo loolu itam njaboot gaa ngi ci def liggéey bu am solo ci gën koo bindaat waaye itam fexe ba waxtu yi ci nekk ñu gën koo dëppaleeg waxtu yi ñu gën a ndax moom mi ko nattoon ci jant bi te ñun li ñuy wax temps universel ci la ñuy gën di faral jëfandikoo ñu gën koo dëppaleeg moom kon liggéey la yu bare bare yoo xam ne ni ni ko sëñ bi waxee léegi xam nañ ne njaboot gaa ngi ci mu ay projet yu am solo yoo xam ne nii bëgg nañ ko jëmmal ñu nit xam ne nag projet yi ngeen nekk ca sanc ba ca fële ca sanc ba lépp ngeen am xam nañu projet yi mag yi ngeen fam ci daara jaag yu mel noonu kon dañoo bokk waar wuñ jiital ñu bëgg nag jàppalante gi gën a dëgër ci wàllu xam-xam ci wàllu aada ak cosaan ak gëstu ndonoy mag ñi loolu mbooloo mi ñu ngi leen ci tàllal loxo fës ci yéene ànd yéen waaye itam fës ci yéene ngeen ànd ak ci liggéey bi ngir ñu mën a dekkal gën a dundalaat sunu ndonoy mag yooyu kon daal xam naa ne noo ngi sant di gërëm di dalal ñëpp nag jàmm di ñaan suñu borom nag bisub suba bi ñu àgg ci te man koo jooxe ci farata ak sunna ba daje cee ngërëmul sëñ Mbàkke Buso waaye daje ngërëmul sëñ Daaru Xasan waaye nag ñu bàll loo ko ci ngërëmul sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu juróom ñetti at ci tënk mooy xan sa sin neel tekk seet looti miilaadi ya di atum Iisaa ci laa ko defal الأصول أحفاد الشيخ مكي بسور إلى أسرة جدنا العظيم الشيخ دار حسن جاي ونضع هذه الهدية الثمينة بيد أخينا العزيز هذا لكي يسلمها إلى ابن عمنا الشيخ عبد الخادم خالد الشيخ شردان رحمه الله وندعو الله تعالى له بالصحة ودوام العافية وبعمر المديد وأن يكمل الله مصارعه في خدمة الشيخ الخطيب ببركة جدينا الشيخ أحمد كبسو والشيخ دار حسن جاي وبركة شيخنا الشيخ الخطيب رضي الله عنه السلام عليكم رفت na feeñiin ñu jortal ورفت تدوت رم رفت الاسن جسليتي yor nañ ko yar ko fa ba mat xëy dalal ko fa baa sëñ aram samba daa jàngal sëriñ baati fa moom la nekk ba njàngam xaaj mu xëy ba ko fa ngay saa yoroy fa mu dem ngir jàngi xam kooti foofee la wàcce ba wàccaat mokkalee fa itam ba bind kaamil bu wow xëy ñaan lu dellooti ca la laxas dem nii gi mbakke kajoor di jàngi xam-xam fa maam Mor Anta mbër mu gis fa Seex Ibra Saar aadama ki sëriñ Masamba Jóob xaritam ñuy bokk lal baati la fekk sëriñ Tuubaa ca daara ja muy ka jàngale tey ñaaxoo ka ñaaxaate mu def ko ab soppe ngir xemmem meloom wacca moom Seex Bamba daa sopp mooy koog mus la soofaate ci lii la sax ba sëriñ Mor Anta wàcc liggéey saa su ngeen di wërati xibaar bu gaaw ñu saytu ko ba mu laar jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu sëriñ Daaru Asan Njaay gaaw leen gaaw ngeen abonné si Daaru Njaay TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu yi ngeen itteewu Daaru Njaay TV di leen toppal lépp luy information 24 heures sur 24 gaaw leen bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp saa su fii si Daaru Njaay